100 mhm. pure moo mënoon naa sauver Samba sa kàddu parce que do na am lu fa indi euh daldi daldi di édulcorer tuuti discours sax wàññi ko affaire bi daldi di oyof tuuti mu njar ko mhm. mais ñafa dajalo ñep ñep yor classe ñu di tirer ñep di tirer ñep di tirer mhm. amul kenn kiy wàññi léegi bu ngeen dajé ko xam dafa bëgg fàtt ay noppam nak da ngeen koy déranger c'est vrai motax mané discours bi seen discours waroon nañ koy mëna xolaat xoolaat bu baax a baax Allez, nous continuons la bataille euh, si à euh, bi euh, c'était vraiment échange yi nga xamné doxna dox Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko mo njëkkee Barthélémy Diaz a riposté gis naa ñoo ko mbëggaajow di mbëkk mir di xalangu mais on est en politique hein loolu yëpp euh, si euh, politique bi <laughs> la bokk Moustapha ñu continuer léegi ñëw si euh, l' observateur l' observateur ñëw na si li nga xam ne moo nekk violence bi balaa ñu ñëw si hmm. violence bi on a vu Ousmane Sonko aussi foofule ci Saloum surtout hmm. ku dem ba Kaolack te waxoo li nga xam ne moo nekk wàllum bassin arachidier bi wàllum sax hmm. li nga xam ne moo nekk gerte gerte beeg mbay mi man jàpp naa ne carrément raté nga sa communication mais on a vu Ousmane Sonko aussi ñëwaat bu baax si li nga xam ne moo nekk pôle développement yi nga xam ne programme programme leen ko neen ko pour euh, la région du Sinsa euh, de de Kaolack. Wa xam nga discours bi lu am solo la. Hmm. daf ne et puis euh, dafa ko choisir bu baax moy fepp fuma dem rek damay campagne ak li nga lañ bëgg ci zone yo manam 8 pôles yi la tànn. si si yëpp fu ne fu fa dem rek dina fa campagne li nga mom lañ fa nar. Hmm. xam nga loolu boy wax ak ñoom dañuy dégg li nga bëgg wax. Mm-hmm. Manam do ñew ci Kaolack bassin arachidien beeg non nangam ak nangam. nga mm-hmm. nga nga leen fa di leen wax ay waxi witti mangook nangam ak li nga xam ne jigéen sor nga ko waroon naa waxee mhm. donc loolu je pense que discours bi euh, doge déjà que mu tànn Euh, pôles yi euh, foofu lay campagne rek idée bu baax la. Mm. boo xamante ne euh, mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci jàpp ne daal message bi dina cadré bu baax ak ak ak population bi. Mm-hmm. beneen biir tamit constat bu nit ñi di gis mooy style vestimentaire bu Ousmane mm. Sonko. col gi yaa ngi gis yëpp chemise yu takk yi lay sol. Mm. bi mu dooree ba léegi chemise yu takk yi lay sol. mbaa chemise yu takk yi tàngul. tàngul non non yi tissu bu oyof lay doon day cuub lay doon rek. cuub cuub cuub lay doon am en tout cas c'est est joli. non sais pas, c' est euh, par rapport ak qui euh, beeg yooyu non non et puis et puis yi yi dafa nice gis nga yi yi lay sol. cuub yi et ça lui va bien non non il yi dafa rafet. yi hmm. xam nga tey jii li consommé local la jàpp. Mm-hmm. xam nga lii bu ko defee bu subaa. ñoom Kumba gajo et consort ñom ñi nga xam yegg sa yaa ngi ma yóbbaale ñoom ñi nga xam ne dañ koy bëggee fuñ toll. ñoom Kumba Gaajo léegi xoolal li nga gis ko ci internet bi léegi def ko mode. non si internet léegi su commencé wu di ko di jaay t parce que man démb am na ko ma doon xam foo gisee t-shirt Ousmane <laughs> <laughs> chemise Ousmane Sonko yi fu ma ko mënee amee donc kon nga xam ne kon lii euh, dafay dafay dafay mën na ci mën na ci appuyer euh, bu bu bëree bëri <laughs> non non je te jure nit ñi dañ ko commencé di wër ma bon léegi cuubkat yeeg yooyu nañ commencé génnee tissu rek commencé defar chemise boo gisee eh, gars yi mën faire des ay chemise yu rafet rek. Euh. gars yi daal di koy commencé commencé commencé jënd. lii yëpp dafa bokk ci charme. mun naa am nu mu jàppee Ousmane Sonko du ko jàppee. du ko jàppee des surtout surtout surtout yenn borom biir yi sax <laughs> yenn borom biir rek des chemises. ne <laughs> buñ ko solee du dem. non émission bi neex daal xam nga njàpp loolu motax mo ma ah, ne bii la la couleur là est très ouais, jolie. couleur dafa ah, rafet cette couleur est bi dafa nice et puis ak ak ni koy bolé ak casquette bi c'est très joli quand même lii lay wax gis nga campagne charme la hmm. waaye boo naan mugg mu gaaral ak di ñàngal ak a nappee ak xuloo ko saaga ak taxawaalu ah. yow ma xol mu sañse <laughs> Moustapha le réalisateur montre Thierno Alassane Sall moom tamit gis nga campagne moy moy li ma wax légui opération de charme la il faut nga leader bo xamné da fay dégager ben charme bi da fay dégager ben charisme bi ak yu mel ak yoy non mais souvent ñooñu dañuy dañuy dañuy am benn avance bu ñu am par rapport ak ak ak ak ñeneen ñi et loolu moo waral boo delloo Fatick euh, autant pour moi démb fa mu demoon. Mm. nga gis fu mu dugg leen tamit faw ñu koy waxtaanee njàpp mm. mbooloo mi topp Ousmane Sonko est ñu ngi topp beneen leader. Mm. loolu tamit dañ koy waxtaanee. mbooloo mi ni muy drainer ful man gisaatuma fi ba campagne bi dooree ba léegi. benn leader bu koy drainer ful. te loolu bu doon sax dafa ñëw au pouvoir mais donc on te dire peut-être euh, ñu nekk au pouvoir ils sont ils ont cette capacité de mobilisation c'était bien avant c'était bien avant. ba muy ba muy campagne al Diomaye Faye c'était comme ça. fu mu jaar ñii naan non nit ñi duñu dara ñi amuñu carte d'identité loolu lañu doon wax. <laughs> ba Diomaye jàll 54 donc ma ne bu fekkoonte ne dafa nekk euh, opposition. mënul mm. mobiliser mu ñëw pouvoir di mobiliser di nga mën comprendre. Mm. te ba léegi boo xoolee ful yi nga jàngat ful rek. da nga gis particularité facilement. Mm. ñële seen i ful borom casquette yi. borom mm. t-shirt yi borom pancarte yi. fii nga gis nii gars yi ni ñu jógee de façon spontanée. Mm. ànd ak ñoom booy jóge fii kan moo fi xaar sa leader ba zéro heure wala ba une heure du matin. Mm. xale yi taxaw si bopp koñ yi di ko xaar ba une heure du matin fii. moo tax su ma leen déggee ñu naan ndaw ñu ko joxoon bopp bàyyi nañ ko dama naan xanaa ndaw yi nekk Gabon la ñuy wax wala ndaw yi nekk Mauritanie de. waaye Sénégal gii ndaw yi fi nekk. ah yaakaar naa ba léegi ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko dëgg la waaw loolu moom. Euh, c'est une réalité bu fi nekk peut-être nag si kanam kenn xamul yàlla def. mais actuellement moom booy liir ba tey. dañuy gis ne bi jeexagul. non non non non ba tey moom ndaw ñu mm. jox nañ ko bopp. Mm. waaw léegi nag moom mooy xool naka lay téewee. Mm. naka la koy téewee waaw naka lay téewee loolu waaw. <laughs> Ndiab ndax nga mën tooñ. Euh, ah waa xoolal xoolal ah, moom tamit xoolal ful bi xoolal ful bi. ah njàpp lii ful la ah xaaral ma noppi sax. lii du ful <laughs> balaa ñu naan damay ruube. lii du ful ah ful la kay maire yaa ngi ne Thierno ngi joxe spécimen yi de. waaw lii la xoole ful ah, foofu rek Thierno ngi joxe spécimen yi de. waaye nii la xam nga campagne bi la waa gis nga mbooloo maa ngi noonu. xoolal Thierno ak chemise ah. blanc rose bi bleu bi les stylé hmm. aussi ah. waaw xool monsieur Ba ngi ree si biir bi ngi ree bay tàcc xam naa Abdou Khadir tamit bay reetaan Abdou Khadir gars yi dañu ne da ngaa sérieux nag <laughs> bu reetaan leader bi. <laughs> Euh, non non attends indil indil kii nii Barthélémy Dias indil Barthélémy Dias ku nekk da nga koy indil ku mu kiyal ku mu tollool Moustapha indil euh, Barthélémy Dias gis nga li ma la wax ramène les images de Barthélémy leader yi fi gis yëpp amul kenn ko fi mën a tollool Ousmane Sonko non amul ko fi mën a tollool Ousmane Sonko am nga dëgg moo neexul jàpp ci campagne lañ ne c'est vrai war nañoo indi Barthélémy Dias mais côté mobilisation bi li fi Ousmane Sonko mobilisé ba mu dooree ba léegi Moustapha le réalisateur waral ñoom Kumba Gadio Barthélémy seen doom bàjj dina leen woon Barthélémy Dias c'est vrai mais man moom li may wax moom euh, awma ne ci ragal te ragaluma tamit ma mel eh. mais bu campagne bi ba côté mobilisation li di mobiliser amul kenn ko fi mobiliser maintenant léegi nag ñu xaar urne yi refléter on verra mais côté mobilisation wax dëgg la groupe yi la rek fi gis ay ñetti yi daw loxo ak ñetti yu ndaw wala donc vraiment campagne bi dafa déséquilibré qualité ah, moo gën quantité aussi non campagne bi dafa déséquilibré. waaw campagne bi moom xaw na kii xaw na kii bu Sonko jàllee Amadou Ba moom ngay seen ci ginnaaw mi ñëw. mais dafa mel ni comme vraiment c'est le prolongement. de prolongement présidentielle de la présidentielle mooy continuer après ñoom loolu la ñuy wax ah ñoom loolu la ñuy wax dañu naan non présidentielle moo continuer après loolu la ñuy wax donc euh, mi ngi noonu. Non, il n'est pas sérieux. Donc, Moustapha, il n'est pas. Ibrahim Badpadji, ça faisait longtemps que je suis là. J'espère que Yangi si Diam. Ibrahim, mandez ma campagne. Bah, il m'a toque rek Di euh, roube ñom kumba gadio. Bah, il m'a toque firek. C'est Daouda Moya euh, assuré. Linga hamne mon ek couverture euh, campagne bi. Et ci def ligue bu bu am solo. Franchement, ligue bu am solo. la nek di def. Mhm. Ak Mohamed, tu as vu les images mhm, de Mohamed? c'est pas pour qui euh, de mais jàpp naa image campagne amul kenn ko dàqale. Euh, non mok reporter Mohammed image non non ils ont vraiment. c'est des bosseurs. daay xalé ndaw marqué campagne vraiment encourager